Ilatouba Touba est l'un des plus grands projets réalisés au Sénégal avec un budget de 415 milliards de francs CFA. Cette infrastructure constitue la colonne vertébrale de l'ossature territoriale qui préfigure un développement polycentrique, équilibré des territoires, porté par des villes créatives entreprenante et dynamique à l'image de Touba la Sainte. Voilà pourquoi le tracé de l'autoroute qui s'étend sur 115 km est conçu de façon à permettre l'émergence à côté de Dakar de nouveaux pôles économiques centrés autour des grandes villes que sont Touba, Thiès, Djurbel, Kaulak, Linger en outre, dans un souci de prendre en compte les enjeux d'inclusion sociale, de qualité de vie, de complémentarité et de solidarité territoriale, Touba comprend, entre autres, près de 180 ouvrages de passage des populations et du bétail, un système de péage fermé avec six postes ainsi que deux aires de, de service installées à Bombay. Par ailleurs, pour relever le défi de l'innovation, de la sécurité et de la gouvernance durable, nous avons opté pour une autoroute moderne, intelligente, permettant une surveillance vidéo sur toute la totalité du linéaire un monitoring de toutes les opérations et activités et surtout un dimensionnement des ouvrages facilitant l'élargissement en deux fois trois voies kon foofu li ma bëgg a wax mooy Ila Touba du rek autoroute waaye dafa nekk autoroute boo xam ne biñ koy liggéey dañ ci dëxëñ ay xarala yu bees yuy tax yoon wi yëpp am na ay caméra télévision yu koy filmer ba tax lu xew ci yoon bi dañu xam fan la su jafe-jafe amee dañ ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo Ila tuba am na aussi ay poste yoo xam ni ak bërëbu noppalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama bi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax ci def courant du nekk nag courant buy buy reye wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax boo ñu daggee grillage bi jur dana jaar jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ si daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autorite yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi de xam nañ na Touba la dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii ki at yu néew Ila Touba dina fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatale au lieu mu nekk deux fois deux ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def deux fois trois voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem ñetti liñ di ci dellu loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi Ila Touba taxna ci biir jamono jiñ koy liggéey lu tollu ci ñeenti junni doomu aadama liggéey nañ ci programme boobule feyeku nañu lu tollu ci ñaar fukki milliards ci ay salaire yo xamné ay payeur la ñu fay doomu réew mi nekk na lu ama am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dinañ nekk si péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm